d'abord il faut saluer un acquis historique bi Sénégal am l'acquis historique mooy c'est fini dorénavant dans ce pays mhm. président fi mënti ñëw ñaari mandat ngay def eh oui c'est un acquis historique mhm. te loolu ci gouvernance Macky Sall la amee malgré tous les combats que les gens ont menés mhm. ñii ne non ñii ne oui ñii def dialogue ñii lépp en tout cas Sénégal am na ndam à travers lui. effectivement. on a réglé l'histoire le problème des mandats. Mm-hmm. président bu fi ñëw léegi. Mm-hmm. ñaari mandat ngay def. Mm-hmm. donc loolu dañ ko ci saluer moom. article moom dañ ko ci saluer le président laaj bi. te xam ne yëkkati na Sénégal foo xamante ni rëy na ci ñëpp. parce que une victoire démocratique. kooku day rehausser le Sénégalais rehausser le Sénégal. partout dans le monde te tey def na ko il aussi le seul président ou le premier président bi nga xamante ne jóge na ci nguur te du élection lañu ñu daanoo gannaaw li Senghor def jël nguur gi dem jox ko Abdou Diouf moom au moins def na ñaari mandat bàyyi du candidat sortant yooyu nag ñun ñëpp ku ci ne danga ko war a jàng nga xam ne sénégalais yi léegi loolu approprié nañ ko ba képp ku mën a ñëw mu président na nga sóor ni lii moom bul jéem ba jëm si def ko que soit te ñun loolu lañu war di xeexee booy xeex boo amee acquis da koy téye loo amul nga xaar beneen yoon nga wuti ko réew noonu lay doxee de Abdou Diouf à Senghor de de Senghor à Abdou Diouf ba tey Abdoulaye Wade ba Macky lépp ci ay acquis la am bu ñu amee acquis bii téye ko kenn bu ñëwee ñu am beneen acquis téye ko loolu la ñuy demee ba régler ñu tous les problèmes parce que on peut pas régler la fois tous les problèmes ci benn ci benn ci benn ci ci benn jour wala ci benn mandat wala quoi que ce mhm. donc loolu véritablement dañ ko ci saluer. Mhm. un parti de masse il faut moom ay problème mhm. il faut qu'il des dissidences dans un parti de masse maintenant kaawu Macky ak kaawu Ablaye Wade ak kaawu Abdou Diouf du benn ça c'est le PS qui avait des dissidences. c'était du Abdou Diouf c'était Niass et Djibo Ka Wade aussi il y avait des dissidences du système c'est c'est c'est c'est c'est l'autre euh, Macky Sall bi et mais li gën a garaaw ci pouvoir mooy ñu war a dem élection qu'il de ait des dissidences du système surtout des dissidences yoo xamante ne dañu am une légitimité politique dans leur localité il faut arrondir les angles c'est-à-dire est-ce que mën nga gën a expliquer euh, Omar ñu ñu ñu. c'est-à-dire il faut éviter. waaw Macky veut éviter. Mm-hmm. qu'il y ait bis du temps de comme ni mu dundee woon du temps de Abdoulaye Wade bi mu demee am na lu bëri lu mu yóbbu. Mm-hmm. bi Idriss Seck demee am na bëri lu mu yóbbu. Mm-hmm. Abdou Diouf bi Moustapha Niasse bàyyee c'est le commence si le pouvoir mu commencé fragiliser wu. ak Djiboka donc moom sañe boobu. il faut mu jéem a def le maximum pour arrondir les angles. surtout qu'il est dans une coalition en dehors de son parti il y a d'autres partis légitimes qui sont ànd ak moom ba egg fi ñu egg tey nan lañu mën a mën a def pour même bu am implosion qui est mu am au moins une implosion la moindre loolu la Macky Sall di jéem nii moo tax mu am tout ce retard est-ce que s'y est pas mal pris en en toog ba heure bii nii nga xamante ne daanaka li ci des euh, bëreetul euh, pour dire qu'il ne participera pas parce que gis nañ ni que avant muy prononcé wu euh, pratiquement tout le monde tout le monde que mu nekk coalition benn Bokk Yaakaar que mu nekk ay allié wam daanaka ñëpp daal dañoo waxoon ni que da dañuy ànd ak moom pour su présenter woo. waaw non dañ moom moom nañ ko mandat ba pare. Mhm. parce que aussi nit lu mu gëmul bu ko wax. Mhm. que ça soit que sa soit dans sa propre formation. ku nekk dana nañ bàyyi président. ku mu tànn ñu ànd moom loolu la ñu wax. Mm-hmm. mais tey dafa am de cas. il y a ce qu'on appelle les fondateurs. Mm-hmm. ñi fondé parti bi ŋànk ko ñooñu ñoo ànd ak Abdoulaye Daouda Diallo ñenn ñi ñu si ëpp. parce que ñoom dañuy xool seen survie politique. Mm-hmm. après le départ de Macky. qu'est-ce qui va se passer ñun ñi nga xamante ni tey ñoo fondé parti bi. mu am ñeneen ñoo xamante ne bi ñu jëlee parti bi lañ ñëw contribuer nañu mais ñii ils les mieux vus ñooñu nag ñoom la ànd ak ak Amadou Ba mii tey ñooñu tey camp bi problème bi yëpp foofu la alors et maintenant problème bi am entre ñoom moo indi Macky di calculer ba bëgg a tur ut un candidat consensus boo xamante ni ne ñoom ñaari ñëpp bu ñu amul un candidat kooku au moins bu génnee dinañ mën a ànd ak moom accompagner ko dem. si lañ doon waxee ay bun Abdoulaye Dione. mooy li monsieur le ministre di wax naan quatre-vingt-dix pour cent. peut-être waaw si lañ doon si lañ doon wax ay ay ay ay ñeneen ñi. ay ay ak Boun Dionne ak. Euh, le président Mansour Faye le président non non non. le le président de l'Assemblée nationale. non non Mansour Mansour Mansour écarté Mansour moom compté tul. Mhm. Mansour moom compté tul mais appareil bi parce que ku nekk bu waxee da ngay xam ne am na dëgg ci li muy wax. Mhm, mhm. parce que Abdoulaye Daouda Diallo tey bu wax bu taxawee ne man fondateur la alors que y a des fondateurs qui l'intérieur mm-hmm. on veut pas de de Amadou Ba xel mën na ko nangu mm-hmm. mais yor réew du rek nekk fondateur mm-hmm. pour gérer un pays c'est autre chose au-delà de la formation au-delà de l'appareil politique il y a au niveau national et international qu'il faut sauvegarder yooyu nag moo tax Amadou tey ëpp chance que les autres parce que au-delà de sa dans le groupe de Macky. Mmh. il a une légitimité à travers son ouverture dans le monde. Mmh. et à travers aussi d'autres Sénégalais yoo xamante ne defuñu politique mais am nañ benn légitimité dans leur dans leur quartier ou dans leur dans là où ils